programme sax lañ teg pour lu suqali waa Thiès moom Denis Mané mais comme loolu lépp gis ko il démissionne de Benno Bokk Yaakaar de son propre gré bi mu jógee Benno Bokk Yaakaar tàggoog ñoom nekkul fii di wax ndax loolu ñoru ko personnalité am ba benn nitam rek ñoru ko li ko ñor mooy lu jëmal kanam réew mi ci la génn nag ne nit yi na ko jóge nga Benno Bokk Yaakaar ñëwal fii nga taxaw Si la coalition ëllëgu Sénégal Je la di la coalition ëllëgu Sénégal mu ngi ci région bu nekk région ak ñeent yi nga xam mom la Sénégal am la coalition ëllëgu Sénégal mu ngi ci mu nekk ci fukki région yooyu ak pour lan la pour briguer le suffrage des Sénégal. samp ndëndëm pour jiite Sénégal loolu moo tax mu sos nak kaay ñu and ak yow liggé ci Sénégal pour Sénégal au soir du 24 février ñu am un président bu jógee ci la coalition ëllëgu Sénégal te du kenn ku dul yow Charles Émile Abdou mo bëgg ngeen tàcc ma loolu bu baax. bu ñuy wax aussi li ñuy wax amna solo trop ñu dégloo dinañu permettre tay ki paré engagé wu pour ànd ak le président dina xam ci ban base lay ànd ak moom. parce que aussi comme ni ma ko waxé à chaque fois xeyna lolu mo moo Sénégal dajaloo def rassemblement jox nit ñi ay 17 solo nit ñi ay 17 man dama leen di nettali benn benn histoire bu ndaw le président Macky Sall bi muy ñëw fii Thiès dañ ma woo tâche ministre de la justice moo ma woo ni ma dama la bëgg a jox cent cinquante cartes nga duyal ma ko ale vingt cinq mille retour vingt cinq mille ma déglu ko ba mu wax ba pare ma ne ko loolu soo ko bëggee am na ñoo xamante ni si président nga baal ma ci kàddu gi mais dafa am ñoo xamante ni si Euh, ay doxandeeb lañ ci politique li ñuy wax naan politique politicienne ñoo xamante ni si bu na Ndiaye wootee ñu dem bu xaarloo wootee ñu dem bu Moussa Ndiaye wootee dañuy dem man nag indiwu ma fi femme yooyu président man koy wax femme yi ma fi indi femme yi ma fi indi tey ñu toog jàkkaarloo ak yow pare engagé wu yi dañ lay liggéeyal femmes yi sànq wax naa la ko ci sumay commencement wax ay femmes yu gëm liggéey lañu ay femmes yu gëm sa projet lañu toppewuñ la parce que dégg nañ la président Sall université dafa am xaalis toppewuñ la leneen mais dañuy topp sa programme bëgg nga jëme leen fu baax dëkk bi nag damay wax ni ñuy woote bëri na trop ñiy yëngu bëri na trop mais man kenn mënatumaa nax ci politique parce que yàgguma ci waaye tamit yàgg naa ci olof njaay nag day wax ni ku yàgg ci loxo nu la loxo téye di ko xam kon man doon ma dof képp ku ma fi indi ne la ñëwal dama am yaakaar ci yow bëgg la président Sarr ML6 fekk la sa base fa nga nekk doole la jàppale la nga jàppale ko mu liggéey jël président de la République le 25 février le cinq février 2023. loolu ndiwuma leen fi pour ñuy tàccoo ko ree dama bëgg ngeen sampal ko ay base Thiès désormais bu ñu jugee fii liggéey bi tàmbali yéen ñëpp ngeen engagé wu ku ci nekk xam naa rukk-rukkaat yi nga mu ne sampalal sa bopp dëggal sa bopp moom dèjà dina am programme boo xamante ne si spécialement daf ma koy jox dinañ jël trois jours yoo xam ne ku ci nekk dinañ la fekk sa base xool ni nga toogee xool nooy doxalee xool nooy liggéeyee te loolu nag yaakaar boobu dañ koo am ci yéen moo tax ñu leen di tàllal loxo. parce que euh, lu tax ma wax na dama kontaan mon ami mon frère Dramé ñoo bokk koñ je dirais pas que sama rak la sax mais mën wax ne sama xarit la parce que xalé bu set loxo la donc buma ma tay ci bëssam bi du ma def lu dul kontaan ci loolu té bu woma ci bëss bo xamné tamit dañ ci waxtané wala fekk fi ko xamné tamit aussi c'est un intellectuel un patriote doublé d'une dimension internationale ko xamné tay tey wax li liggéey Sénégal li liggéeyal administration Sénégal le président Charles Émile Abdou VI Charles donc euh, de articuler communication ci ñaari point point parce que le président VI c'est une personne qui il n'est plus à présenter parce que amna ben jour bo xamné ne nañ sax parce que man j'ai un oncle qui est à la finance monsieur Choumaré Ismaïla ba nga nekkee direction de l'information tase nañ ci bureau ben tase bu vif ni. depuis bo ba li ngay jëlé direction de la solde mu liggéey direction de la solde liggéey bu doy parce que man je suis un enseignant je suis un enseignant je suis un fonctionnaire je sais très bien ce que je parle mais ñi xamul président c'est la population il est temps que la population connaisse le président 6. parce que la direction de la solde ko sama dit que nga que fa ay enseignants rappel tout ça nga ordonner affaire bi ba clair donc un patriote travailleur, un un travailleur ce que ça donc man dama koy tuddee monsieur 2.0 parce que il a eu à digitaliser la direction de la solde que booy jot ce bulletin de salaire vous ngay toog fi nga toog solde télécharger bulletin de salaire donc de quoi sant di ko gërëm ci liggéey boobu di ko wax le président 6 les 162 et quelques mille fonctionnaires du Sénégal vous sont redevables. Les 162 et quelques fonctionnaires du Sénégal vous remercient de votre travail extraordinaire que vous avez eu à mener au niveau de la direction de la solde. Donc, content nañ ci le di le sant le parce que le Sénégal ni ñuy politique c'est purement éphémère ñun dañ pas ne politique saga, la xas wax lu ñaaw c'est pas ça Nous ñoo politique et aujourd'hui je suis très content ba ma vous faites de la politique parce que nous sommes là yow bu de deful politique ay mécréants ñoo def des di leen diriger dëkk donc je vous encourage à persévérer parce que je suis sûr et certain que le Sénégal fi mu bëgg a àgg parce que vous avez les compétences vous connaissez la déontologie, vous connaissez ce que c'est l'éthique, la morale, le de mintiyo. Parce que nous, enseignants, enseignants, vous n'êtes au Sénégal, vous êtes gorga la lohni. Charles Emile Sis, fum la wada nga wara Parce que nous, ñun xam nous ñun enseignants taxe de bëgg xaliss. Tay dañ signer des accords réalistes et réalisables avec l'État du Sénégal. Nous avons accès à ci japandaw ga gaay ba ci la jógee fi pour donc kooku kan mo gën nek patriote donc ñi nek ci wër ci dëkk bi nan ay patriote patriotisme ça commence d'abord par le sens de la responsabilité la morale la dignité c'est ça le patriotisme dama bëgg ngeen xamné seul li ñoo faire la force te nit ki tay li muy am wala li koy jariñ mom mo koy ñakal bopam te pour ñu ñakal ko suñu bop il faut ñu and ak kat te président

ndax ni ñu déggee ak ni mu waxee te du tey rek peut-être dégg yàgg nañoo dégg lu baax lu muy def ak bañ gu muy bañ donc ñun profil bii lañu soxla pour le Sénégal damaa bëgg ñu fi jógee ñu dëggu ànd jàppale la président ndax ñun Sénégal soxla nañ ko Thiès soxla nañ ko xam naa nag wax bi du mën a gudd dama ko fi yemale comme dafa guddi te femmes yu bari dañoo war am fu ñu dem incha allah dinañ gën a yaatal président de man R100 ga ma dëkk incha allah su ma demee ndax gis naa man Sénégal rek ma ñor du xaalis moo ma ñor du dara ndax man dama ni man ndaw laa li may jariñ man maa koy ñaq mais nag bu buñ lee engagé wu dañuy engagé wu ci koo xamante nii tey na am na yar am na profil bi pour changer suñu réew ndax réew mi kenn mënu koo jël ci violence ndax buñ ko joxee koo xamante ni violence sax xam nga fan la ñuy mujjee Euh, coup d'état bi ngeen di dégg sa bi ngeen di dégg ci yeneen réew mi ci Sénégal gii lay am ndax am na ñoo xam ne buñ leen denkee réew mi coup dina fi am te ku bañ coup deta nag dangay ànd ak ñi jar a àndal te yaakaar naa président mi moo jar a àndal. monsieur Ciss ñun dañoo dëkk Thiès yàgg politique di politique man responsable régional femme la RP bu Serigne Mamou Niass bi El Bachir jógee di politique di sama doom. ma bokk ak yaayam ndey ak baay mën naa laa wax ne la jigéen ñi ci saal bii ñëpp ay ay góor lañu ndax ñëpp dañoo jóg El Bachir ñu nag ñu ñëpp dooleel ñu ku fi am mbooloo tey ba mbooloo mi topp ci sa gannaaw yàlla ak El Bachir bàyyiwuñ ko de moo ñu bàyyi kon xam nga kon ay góor fi ne ba tey jii bu fekkonte ne fa mu tegoon tànkam àndoon nag ñun ñi nga àndoon moom boo nono. woowee duñ la wuy si non non parce que nag la béy daan dundee ba sax sikkim da koy dundee ba xëy dee waaye Sénégal moo toll foo xam ne nit ñi dañoo soxla ku leen jàppale pas ci xaalis non non jëriñ mais dafa am sénégalais yi dañ xam nga soxla ci leader faale ak safoo ak yëg soxla wuñ la nga romb ci 4-4 bu ñuul de takk sa veste di jaay Léopold Sédar Senghor xaaruñu loolu ci yow xam nga lu ñuy xaar ci yow nga ñëw dugg ci terrain bi ñu ànd dugg ci terrain bi bu ñuy dugg ci terrain bi nag yàlla ak jëmmi at xaaname moo tax. aussi ci yitte yi ngeen bokk ndax ñëpp xam nañ ne jigéen amul jot ñëpp xam nañ ne jigéen moo yor kër te man mi xam naa ci dara lu tax ndax jigéen a ma yar man bi mu amee ñetti at la sama papa génn àdduna. donc sama yaay moomu ma yar ba ma toll nii te ba léegi mu ngi fi xam nañ luy àqu jigéen xam nañu li ñuy daj moo tax bi ma at xanaa ne jigéen ñi loolu te ma ne ko lu ma jàppoon dana ko bay ndax daj ak ma ne ko it Tambacounda laa jógee dem seeti ay jigéen ñoo xam ne fii la ñu bàyyeekoo Thiès ñu ngi ci àllu Tambacounda bi lu ñuy def ay banana lañuy ñuy bay di ko jaay di ci suturlu di ci jàppale seen jëkkër yi di ko exporter aussi jigéen foo ko fekk mu ngi reyante pour njabootam boroom këram ak moom ci boppam donc jigéen ñi jox nañ leen cër xam nañu seen ak mais it xam nañu li ngeen représenté ci Sénégal moo tax liggéey ak yéen dañ ci mus a sawar Adja Ndeye Sow mi mun na ko seddi man it dama nekk koo xam ne sama lépp dama ko teg ci pragmatisme moo tax heure bu ñu woowee conférence man leen jaru ko Sénégal li ñu fi war a def yépp xam nañ ko na nit ñi liggéey jàppale population bi te yàlla tax kàddu yooyu aussi dama ci boole ñii ma àndal ndax ñii ma àndal boobu ba léegi àndu dëgg la ñu ànd du alal du dara Adja Ndeye Sow mi ñoo ànd depuis bu yàgg muy femme politique bu am expérience ku mën a téye projet ndax tey projet bu muy géré financé par les Suisses yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko ci biir Thiès ak ci biir Sénégal muy jàppale ay jigéen yu bëri ci alphabétisation mais aussi ci transformation des fruits et légumes muy jigéen bu jar a xam aussi ku jàmbaar ñu ànd ceeg aussi Babacar Bertou Diop enseignant au niveau de l'école Modou et Thiaw di école boo xam ne liñ koy ràññee mooy baratal moo ko defaraat muy école bi gën a rafet Sénégal te chaque année résultat yi muy am pratiquement du sori 100 pour cent ñu ànd ceeg aussi mam Biram Diouf bu Silman mu ngi ni toog nekk aussi enseignant nekk leader politique au niveau de Silman Thiès Est ñu ànd ceeg aussi suñu sœur di madame si Fatou Samb nek aussi ci cellule cadre ëllëgu Sénégal nek ci ciment du Sahel di xalat xalat yu rafet aussi ci biir ëllëgu Sénégal ñu ngi ànd ak aussi suñu fa jibi sak jibi moom mu ngi yëngu ci wàllu commerce nek aussi ko xamne depuis lors ñi ngi ñi ngi ànd parce que baax na ngeen xam ñu ñi andal ñan la ak madame Camara Ndeye Sira Diop nga xam ne lépp lu ngeen leen ndax gis ci wàllu programmation ci ëllëgu Sénégal moom la dañu am mbégte nag ànd ak tey suñu frère ak xanaa Dramé kii nit ku baax la nit ku dëggu la parce que dama ko test bi mu ma ne dama bëgg ànd ak yow ñu liggéey ma ne ko bëgg nga ànd ñu liggéey ma ne ko ma ne ko dama bëgg aussi koo xam ne li muy def dëgg la parce que bari na politicien Thiessois yoo xam ne tey yàgg nañ di ànd ba yéen jàkk gis mais heure bu ñu ñëwee mën na leen baax na mais kii ku jar a àndal la bu ngeen ko jàppoon ñaar jàpp leen ko fukk xale la suñu rakk la mais ku dëggu la jàpp leen ko te yàlla tax ñu ciy remercier aussi suñu frère Cheikh Thiam ñun ñoo dëkk Mbour 3 muy xale aussi bu dëggu bu xam lu muy def ànd ceeg aussi suñu sœur Dieynaba Mbodj cellule bi ñu teg Mbour 3 gis nañu niñ ko téye ak déjà niñ koy commencé di doxalee ma di leen xamal ne Thiès bi bu ñu nee ëllëgu Sénégal Thiès bi la war a démarrer lu tax parce que Thiès tey politicien boo fi yëkkati Sénégalais suur nañ ko boo waxee ñu wax wax bi man gën a betti man ci Thiès waay ñaan nitu Thiès la bu ñu leen nee nitu Cees rek maanaam rey nañu man de Charles Emile Abdou Ciss bokkuma ci nitu Cees yi nitu senegal la te Sénégal bi kenn ëppaluñu fi Cees nag dafa jot ñu gëm seen bopp ñu bàyyi ñu leen di mottalikoo ku soxla mbooloo ne naa dem Cees ku soxla rassuré wu ne naa dem Cees

xalé yi ku len romb fi ci esplanade bi ku mu tiitalul ça veut dire que do responsable nit da ngay xalat pour l'avenir biñ ma proposé na ma dañu bëgg nga yoroon ñu zone nord tous les trois mois dina la jox temps de xaliss man ne leen soxlaw ma ko yàlla sutural nañu ba ñu génne école nationale d'administration nek ministère des finances soxlawuma ma xaalisu politique pour dund

gérer élection bi élection la taxuloon ma jóg looloo taxoon ma dakk sama tànk Thiès parce que mënuma liggéey ci loo xam ne caaxaan la wala loo xam ne bu subaa dañ lay tuumal nan la moo ko fi defoon bi ma gisatu ma xam aussi j'ai démissionné de Benno Bokk Yaakaar en août 2017 balaa ñuy démissionné li ñu jotalee ak euh, gouvernement sax ñëpp xam nañ ko mooy injustice injustice baaxul ci dëkk

président Macky Sall ñu école président Macky Sall taxul ñu jall école nationale d'administration bi may dénk solde aussi du poste politique dañu nek direction informatique genn fa ñu ne ma dañuy am jafé jafé sol dañu bëgg nga redresser ñu du politique du dara donc man mosuma poste politique sama liggéey laa and ci ak nit ñi. léegi ba génn jotee génn nañu te amuñ ci benn jafe-jafe xam nga lu tax bokkuñu ci ñi Macky Sall di pisole déedéet bokkuñ ci de te président makisal Sall xëy na yéen yéen a ko xamul mais xam na bu baax kuy Charles Émile Abdou Ciss dama bëgg nag rassurer population thiessoise ne leen ci ngeen fekk si tey gor la comme yéen liggéey la gëm parce que Sénégal bi du wax moo koy defar du conférence de presse du marche liggéey moo koy defar te liggéey boobu daf fi manqué yéen nag ñu neex a àndal leen parce que gis naa dégg naa te dégg naa aussi seen cadeau. ñu nag suñu liggéey yépp ci terrain bi la homme de terrain la mois de mai ba léegi ñu ngi ci terrain bi fu demul demoon biir Sénégal amul def naa trois jours Tamba six heures du matin la agsi fii Thiès mais malgré jeudi at xana ma ne ko li nga sumb dinañ la ci wuyu amuñu bés bu ñuy noppalu donc ku ñu woo tey sa quartier dinañ la seet si semi costume bi tekki cravate bi ndax nag Thiès la ñu dëkk fi la ñu yeroo xam fi lépp dara ëmp fi suñu tànk moo gàtt rek boo ñu soxlaa ñu fekk si la wax ak yow bu ñu amul leneen lu ñuy def nag ñu ngi toog ci kër gi dama leen di rassurer ne leen fi ñëw pour suqali Thiès parce que dafa jot ku fi am doom am fi sët am fi jarbaat war nga xalaat ne cees bi ni muy doxee mënatul dem Sénégal sax lay wax parce que dund bi ñuy dund dafa cher dafa metti souveraineté alimentaire lolu ci lan lay commencé moy Beykat yi nga tay dañ leen doole joxuñu leen cër bi ci war ñu jox leen leen moyen bu ko ñuy mëna andi ay produits de qualité di jox population sénégalaise li ñuy yek ci dund bi nga ne loo ko Nous mën mais volonté politique la laaj courage politique nga affronter lobby yi nga aussi ñi ngi Sénégal te bëgguñu loolu am ñaareel bi mooy ci wàll bi nga xam ne mooy industrialisation Sénégal amatul industrie industrie amatu fi